Em vậy dal leen ak jàmm ginnaaw pëcc xoo amoon ci assemblée nationale keroog ba ñu buggee woon taxawal na commission dafa mel ni nag ne démb na lépp jaar na yoon ëjuglekaay bi di Sud Quotidien bi ngi ñuy xamal ne fukk ak benn commission yooyu de mujjee nañu ko installé te it waa Benno Bokk Yaakaar dafa mel ni nag ñoom ñoo jël la ca ëpp ndaxte ci fukk ak benn yi de fukk yi ñi nekk ci seen biir ñoom ñoo ko jiitee benn bi dong bi nga xam ne nag moom moo jublu ci wàllu euh, défense sécurité moom la ñu dénk Aïda Mbodj bu groupe parlementaire libéral yéenekaay bi di Sud Quotidien ngi ñuy xamal ne lépp lu jublu ci wàllu commission urbanisme habitat ak équipement ak transport dénk nañu ko Ndeye Lucie Cissé commission du développement et de l'aménagement du territoire jox nañu ko Cheikh Seck commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains Djibril War moom moo ko jiite commission affaires étrangères de l'Union africaine et des Sénégalais de l'extérieur Tete Diedhiou moom moo ko daal di jiite Aminata Gueye moom moo jiite commission de l'éducation et de la jeunesse des sports et des loisirs ci mbirum Aminata Gueye moomu sax dañ ciy taxaw ak cukalikaay bi di li xew ndaxte mi ngi ñuy xamal ne Aminata Gueye moomu de moom mooy bu baax bi ndaxte bu ñu fàttalikoo keroog nag ba ñuy tab bureau bu assemblée nag Aminata Gueye moom moo fa nekkoon tey ji cukalikaay bi di li mi ngi ñuy xamal nag ne mbir gi ni mel de naqari na nag waa Benno Bokk Yaakaar te dafa mel ni nag ne l'opposition nga nekk ci assemblée nationale dañ cee bëgg a sukkandiku nag ngir neenal bureau boobu loo sax moom mi ngi ñuy xamal ci bureau cukalikaay bi di li xew conseil constitutionnel constitutionnel ngir ñu daal di neenal bureau boobu lu weesu lool nag nee nañu tamit parité gi nga xam ne kenn dëggulu ko ci biir bureau bu assemblée nationale bokk na nag ci li nga xam ne moom la libéraux yi daal di bind ki jiite conseil euh, consultatif coglikaay bi di Sud Quotidien bi Tanor Dieng ñoom de am na ñeneen ñu leen fa wuutee ki nga xam ne nag moom mooy Abdoulaye Makhtar Diop moo ko nara wuutu Abdoulaye Makhtar Diop moom saa wu coglikaay bi di l'office mi ngi ñuy xamal ne moom de démb daal dinay xamle nag ne am na ñeenti proposition de loi yoo xam ne daf ko fas yéene nag fësal ci assemblée nationale benn bi nag dina jublu ci wàllu indépendance su kuréel boobu di assemblée nationale ndaxte moom ne na la mu gis moom mooy daal ne député yi nag du ñu mën a defee seen liggéey si nu mu waree ndaxte saa su ne dañuy sukkandiku euh, ci njiitu réew mi euh, coglekaay bii di Sud Quotidien ma nga ñuy xamal tamit ne démb ca assemblée national ñii di député yi nag daal dinañuy nangu ne dinañu dindi kiirlaayu bépp député boo xam ne nag da am ay jafe ci wàllu yoon euh, coglekaay bii di Sud Quotidien ne député yi nekk ci l'opposition bi nit ñi nekk ci majorité bi ñoom ñëpp ànd nañu ci li ni mel autorikaay bi di laas tey jii nag ma ngay ñëw ci mbirum Pape Diop moom mi nga xam ne moom moo jiite Sénat autorikaay bi di laas nañu Pape Diop nag bu leen foog nag ne alternance moom moo tax mu am xaalis ndax ndaxte Pape Diop moomu de am na xaalis bu bëri laata sax atum 2000 ndaxte moom nee nañu nag laata 2000 de amoon na koppar yu weesu juróomi milliards ci suñu xaalis ndaxte Pape Diop laata alternance bi nag am na ñetti kër yu ngand yoo xam ne daal étage la ca Liberté 6 ca Hann ak tamit ca Gueule Tapée am na tamit ñaari kër yoo nekk ca Almadies ak benn immeuble boo xam ne 600 millions de francs CFA lay jar fële nga xam ne moom mooy sa Thiès ak benn kër fii ci biir VDN bi Pape Diop it am na ñaari compte bancaire fii ci biir Dakar yoo xam ne daal am na lu weesu fukki millions ak juróom rax ci dolli oto yi nga xam ne nag moom la jot am ràññee nañ ci benn BMW benn Lexus benn 4x4 ak benn Citroën C6 ci ba léegi dañ ciy jukkee ak jóglekaay bii di enquête ndaxte mi ngi ñuy xamal ne mbuxum de am na fële nga xam ne moom mooy ci hôpital dalal jàmm waa ARMP ñoom ñoo def ay gëstu ba gis li ni mel ci noonu sax la ñu xamee nag ne am na ci lu weesu juróom benn milliards yoo xam ne dañu ko fa lu gaañu dañ leen yóbbu woon ca hôpital El Hadj Ibrahima Niass te mu nekk ca Kaolack foofu nag liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci l'hôpital boobu de tey jii ñoom ñoo fësal seen kàddu mer ba futt nag jëmale ko ci doxalinu seen hôpital boobu ndaxte dafa mel ni sax ne dañ leen a fàtte loo sama moo tax bu nañu seen kaddu di ñaan nag ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiite ñu jël seen matuwaay laata nag ñoom ñuy yëngu-yëngal jeexale ko nag ak xibaar bu tiis bi nga xam ne moom moo daal tey jii ñuy yëngatu ci wàllu aada ak tamit ñu dëkkee ci diwaanu Ndar ndaxte coglikaay bi di Sud Quotidien mi ngi ñuy yëgal génnub àddina Mame Sey Diop mi bokkoon ci troupe Bara Yego Mame Sey Diop moom nga xam ne nag ràññeewoon nañu ko ci wàllu théâtre moom moo génn àddina moom mi nga xam ne Ndoye ak marie ba dara Aline Badara Diagne Golbert Néné Komé ak Daouda Guissé feebaru jabet bi nga xam ne nag moom moo nekkoon ci moom te mu ko doon xeex diirub ñaan fukki at moom moo ko mujjee yóbbu Mame Sey moom moomu groupe Sud Communication ma ngay jaale njabootam di ñaan suuf sedd ci kawam li moo nekkoon mbokk julkat ci li gën a fës ci biir jukaay ñoo ni ñaanal njaxtalu